téléspectateur Galaxy TV salaamaaleykum nuyu nañ leen ku nekk ci turam ak santam tey nag ah, comme ni ngeen ko gisee ñoo ngi nii ci marché Touba bi comme ni ñu leen ko waxee woon rek nee nañ leen ñun dañ leen toppal lépp loo xamante ne nii day am rapport ak màggal euh, Touba bi le ba tax na ah, loolee ñu ñëw rek ci marché bi ngir waxtaanee lépp loo xamante ne nii dafay xew dinañ gis nag ñi nga xamante ne nii ñooy dawalkatu charrette yi euh, ñoo ngi fii ci marché Ocass comme ni leen ko waxee léegi ñu taxaw ak suñu benn papa dañ koy bàyyi mu nuyoo papa nuyu nañ Assalamualaikum warahmatullah. man lañ jaga ciubu chef de gaz rasu Sareti sura. di chef de zone fi ci Touba eh, may sondu ndindi bi ni ko commencé ndindi ba ke dem corniche plaier euh dem encore dem boru keur Baye mais agul keur Baye Laat dañoo am tuuti luñ fa am kon donc ñun ñoo nek fi ci Sareti sura yi kon di sen gan fasiyene waxtan ak yeen ci programme bi nga xamne mo fi papa lan nga ñu mën a wax actuellement si marché bi ak événement bi ñuy dëgmal muy màggal Touba. waaw marché bi de moom liñ ci mën a wax mooy gannaaw bi nu sontee yàlla ba pare julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi waaye di sant xaadimu rasul mi nga xam ne gannaaw yàlla tey moo tax marché bi xate nii ndaxte mooy ki nga xam ne si ne wooteem bu rëy bi moo waral lii ndax kenn ku ne yaakaar naa ne sax booy jaar day mel ne sa moroom ngay jaar te doo ko kon gis-gis boobu la nit ñi am ngir sëñ Bàmba la ñu wuy si moo waral nag jafe-jafe bi am muy wàllu circulation ndax ci ñun circulation lañ toll muy transport lañ nekk kon ci côté transport lañ mën a waxee ak yow moo waral nag sareti gan ñi ak sareti dëkk yëpp jaxasoo waaw. Euh, marché bi fii euh, dama la dégg nga ne saretu gan yi dafa am ñoo xamante ne bu màggal gi jotee dañuy indi seen ay charrette fii ci garage bi pour euh, mën a àndandoo ak ñi fi nekk loolu da leen sonal wala ñoom pour ñu indi ko dafay am yenn charte yu ñu leen di teg wala c'est gratuit. Mhm. waaw ñun dey moom wax dëgg yàlla chaque màggal ñoom dañuy ñëw bu nu ñëwee nag ci garage yi ñun dañuy ubbeeku pour ànd ak ñoom ci liggéey bi wane leen nag Serigne Touba moo xewle donc li ñuy def mooy bu ñu ñëwee ñoom ñun duñu leen laaj participation. dañu leen di ñëw bàyyi leen bu kii yabee après ñu may leen ñu liggéey dañuy wax ne yëf yàggul te comme Sëñ Tuubaa moo toll foofu ba may nii moo tax ñun affaire bi du demee noonu suñu côté quoi duñ leen laaj dara dal waaw ñun daal moom séq ñoo ñoom ci wàllu lenn loo xam ne dañ ñu daf ñuy déranger ci wàllu côté boobu pour pour beneen affaire dal voilà. léegi léegi ñoom dañuy ñëw. bu màggal jotee dañuy ñëw indi seen ay fas takk charrette ngir liggéey ak yéen léegi su màggal bi jotee ñoom aussi après ñoom dañuy dem bàyyi leen ak seen waaw euh, fi mu toll nii ñoom dañuy ñëw bu ñu ñëwee sax am na ñoo xam si ne ñu ngi dal ci sunuy kër comme seen partenaires yi charrette yi ñoom ci la ñu dal euh, bu ko defee nag bu ñu demee ba nga xam ne ñoom dañuy war a dem dellu dañuy dem bàyyiwaat ñu ak sunu garage ñun nag bu ñu bàyyee dafa am rang. ndax ñun dañuy am rang boo xam si ne muy kak chef de garage kak soor yi yooyu yëpp dafa am su ko def ñu bàyyi ñoo suñu liggéey nag ñu continuer suñu liggéeyu bopp mais bu ñu ñëw tam ñun dañ leen yaatal suñ biir liggéey pour xam na leen daal mën nañoo bokk lépp bokk ndey bokk bàyyi kenn du déranger morom ji ci dara daal waaw ndaxte yaatal daal dafa baax ndax Sëriñ Tuubaa moo ne nañu wàcc lal yi euh, ca yaatal xol yi bu ko defee ca rafetal jukka yi su ko defee nit ñi mën cee gis seen bopp kon ñun ci yooyu lañ nekk ñun dëkk yi waaw salaam Euh, ga charrette yi fii la déparé mais ñom fa lañuy yem voilà ñun de suñu charrette euh, ci règlement intérieur bi ñi ngi def soro ba terrasse manam ñun ci loolu lañ def manam ci boru keur bas señ bas señ Abdou khadir soko rombé touti da ngay def euh, ci ngay jadd dem terrasse ñun mom soro ba terrasse lañ def sunu règlement intérieur waaw ñun daal soro ba terrasse lañ def légui passi nak fa la tollu wax euh transport bi mi ngi aju won ci ñaar fukki dërëm manam avant magal mom ñaar fukki rek moy tarif normal bi bi nga xamé nak magal gi dik na mom su boobaa dañuy dégager responsable de serveur ak responsable chef de garage rek moy taxaw ngir organiser doomu aadama yi ngir manam en compagnie len mais fi mu responsable nii responsable deug deug mom moom na ci lolu ndax té client yi sax da ngay dem yag ñolay forcer xam na la bu saret bi mënut a buñu gisé 200 wala 300 ba téeméer dañ leen ko jaral ngir donc dañuy bëgg dem duñ mëna dem ngir euh, yor nañ seen xaaliss mais nak saret yi dañuy am foofu dañuy sonn ba duñ mëna dem dem tay xam nga soo ba léegi ngay yeb yebee bu mu jaag sa fas day sonn waaw léegi nag loolu moo tax sax tarif bi gën di yokk ndax man bëgg na maa dem am naa junni mais kii fayu na ma téeméer hmm? kon donc dama koy fay dem mais bari na ci loo xam ne client yi ñoo ko aj mais sax du euh, du saret yi. saret hmm. euh, yi ñoom par nombre bi ñaata ngeen yeb da ngay ni surchargé wala nombre normal ngeen yëpp. wa xam nga fofu ba euh dafa am ci sareet yo xamni ñun bu dee da nga déparé fi ci ñun euh, ñun dañuy def bu dee ci règlement intérieur bi comme bu fekkee ne yàlla doon kenn demul manam magal amul mom nombre ngay def 10 personnes la yow ak mom muy 11 personnes kooku mo nek ci kette bi su fekkee nak magal ñëw na mom euh, da nga gis sax ko xamni day jël bagage bi sar ni i ci bagage hmm nga xamne mom moy sisar sa fasam. ngir lan fasi di daan waaw xam nga ngir lan bëggee amna na ñoo xamne beug nañ beug nañ li yor beug nañ seen bop amna ñoo xamne si ne nag na campagne moy dërëm bi lañu xol profito ci mais duñ xol ëlëk te ëlëk dafa mata a ñaaral bi borom li nga yapp borom bakkan la kon war nga ko mëna a xel bu baax te xam seen bu liy jeexee ëllëg lay teral kon dang koy sóoraale sa ëlëk dal papa ci période màggal bi ñu nekk ndax euh, gis nañ ne Touba day xat policiers yi dañuy ñëw est-ce que doo leen faral di am ay problème ak ñoom ci yoon yi ñuy baare. Mm-hmm. waaw xam nga euh, màggal gi ñëw na policiers yi ñëw nañ euh, ñëw ci lu am solo ñoom nag ñu leen remercier ci li nga xam ne si ne li ko commencé ci kaw ba ci ministre de l'intérieur ba si si commencé lépp ci état daal ba ci fi ndomb ak tànk policiers yi ñëw. tay ba ci ñu bokkal liggéey bi ci dëkk bi ñëpp leen remercier ndax bu doon ak ñoom tay lambay ñaw no sonal amul de ndaxte man mi toog di wax ak yow tey damay chef de zone euh, avant li dam dañuy ñëw ne la ñun kat dañoo bëgg nga wax ñu tur yi ngeen xamne fi ngeen bëgg jaar su ko defee ñu ubbil leen ko ba du problème man mi ay tur yo xamne fi ne fi jaar yépp sama zone bi dañoo ñu jox ma tur yooyu donc policiers yi ñu foofu taxaw di liggéey liggéey ba am solo dafa am nag loo xam ne si ne soxna si mooy fi mu toll yoon ah ñun lay waral yoon wi yaa ngi dégg mais nag loolu moo ci am waaye wax dëgg yàlla moom ñi ne ci kaw yoon wi cay jubal say bàyyi xel dëkk bi bàyyi xel bis bi amuñu benn problème léegi euh, si li ma comprendre policiers yi bu màggal jotee dañuy ñëw waxtaan ak yéen ci fi ngeen war a mën a jaar ñu wax leen fii la ak fii ak fii ñoom ñu mën fa euh, bàyyi bañ ko baare léegi euh, lan ngay wax sa mbokku dawalkat yi nga xam te ne ñoo nekk fii di dawal ci charte yooyu policiers yi teg nga tàggatoo waale. Hmm. waaw wax sunu mbokku dawalkatu saret yi ñu wax ni rek ki woote dafay ko am solo muy Serigne Touba ca dam ñoo ci yar ak teggin. maanaam dundu dëkk bi mën a dundu lislaam la kon bu donc ñu fi ñëwee mooy li ñuy war a def mooy xam li ñuy conduire maanaam donte code jafe na fi waaye circulation bi ñuy bàyyante xel xam nga lan mooy code code ci xol lay nekk moo koy mooy code science maay nit ki boo ñëwee ah sëñ bi yaa may gaañ ah jéggal ma ci la tax ca xam ne li ñetti fan la day jeex ah, kon ñetti fan yooyu day jeex mooy ñu lu ci bàyyante ci xel bu baax a baax euh, fas yéene daal ñaan yàlla màggal gi jeex ci jàmm kenn du gaañ sa morom kenn du ci gaañu Euh, mala bi nga xam ne da nga ko yor nga jàpp ko baax jàppale ko ci xam ne dundal gi mu lay dundal rek ak tedd gi ko teraa ngi ko yàlla teral nga góorgóorlu ci bu baax ba mën koo jàpp baax a baax a baax su ko defee bu ëllëgatee dina la mën a yor waaye mën a yoraale keneen même boo ko jaayee sax ëllëg dina mën a jàppale keneen mais su fekkee ne da ko dawal sonal ko ba nga xam ne si ne boo ko doon jaay da nga ne si yow tàggoog moom jafe-jafe boobu muy dund rek ay àq kese la nañu xam ne li ñuy waral ni dañoo dañoo amee la àq kon su ko defee ñu góorgóorluwaat rek bu baax a baax sàmmoon teg ak yelleefu dëkk bi daal maanaam di góorgóorlu euh, di la remercier ci ni nga dëkkee ndax euh, euh, li sëñ bi santaane yaa ngi ci mooy que ne sol bu yiwee bi dafa bokk ci li nga xam si ne boo taxawee di wax a ñun dañ lay bàyyi xel ci loolu donc bu fekkoon ne bi nga accès meloon noonu bay wax duñ la wuyu ndax danoo bokk ci kilifay dëkk bi moo tax kon donc ñoo ngi lay remercier foofu di remercier Étoile waaye nag fas yéene ci dundal askan wi ci kaw ñu xam ndax lii ngeen def nii nekkul loo xam ne si ne ku ko séen da nga naan lu soof la mbir mais lu am solo la mooy gindi nit ki waaye giide nit ki waaye bu ko defee boo ko tegalee nit ki mu xam fi mu war a moytu ñu xam ne tamit Touba gi lu am organisation la lu jaar yoon la ki fi nekk nag yaa orienté wul sa bopp yaa organisé wul waaye Touba moom organisé wu na ndax Serigne Touba organisé wu na ndax benn baat moo fi nekk muy Serigne Mountakha ku topp na Serigne Mountakha ca ko organisé wu nga ku wàcc yoon nag toppoo ko woo sa bopp man de maa ngi Serigne Mountakha man fofu la nek merci beaucoup papa cadeau yi rafet na merci beaucoup wa Galaxy TV ñu lay remercier bu baax a baax merci. sëñ Naar. Euh, lan nga ñu mëna a wax ci magal gi instant bi ak charrette yi ngeen di jël ci yoon bi. isaab mom xamna xam naa ne moom fi ne ni mom kuy dem tax mo fi ngay dem mom da nga reer ndax màggal gi dafa commencé xat te ñëwagul waye nak sant seigne touba rek sant seigne touba ndax fi ne ni mom ku xol xam seigne touba yalla fay nako ndax li mom du du hasard ndax sëñ tuba def na def na lu tax sa borom war kaa fay lu mel nii xool Tuubaa fi mu ne nii moom xam ne commencé naa xat tamaa gi ñëwul waaye lépp nañ ko sante sëñ tuba rek waaw ku ci ñëw nga kat noom na nga def comme ni ko sëñ bi waxee waaw ñu ànd ak yar ak teggin col col gu jot waaw ñu bàyyi xel baax a baax. noo tudd. Ibrahima laa tudd Ibrahima waaw. Ibrahima nga ñëw fii Touba ngir màggal gi wala yow fi nga dëkk. ma fi dëkk bi fan la toll instant bi. paas bi rek fi ñu nii gars yi ngi yokk am na ñu yokk gudd nag waaye am na ñu yokk bu 200 200 francs waaw. màggal ñaata yoon bi nag maa doo leen faral di am ay problème ak ñi nga xamante ni ñooy dawal ndax yenn saa ñu yem foo xamante ne nii yéen bëggoo leen fa woon wàcc. loolu dina am de mais bëriwu ci bëriwu ci de moom bëriwu ci de bëreegu ci fi mu toll nii moom mu ngi am nag mais bu nee ma xam ne màggal gi si suur màggal gi ak guddi màggal gi boobu lay am nga xam ne mu ñëw ba corniche daal di tourné foofu noonu noonu lay demee. Euh, sëñ bi yow nag mosoo am problème ak ñi nga xam te ne nii ñooy. moom dama koy faral gis rek waaye ma ko am moom wax dëgg fa yàlla waaw. mais ñoom yenn saa yi ne nii mën na leen indil ay gàllankoor ci yoon. waaw loolu moom bëri na ci ñoom na ci ñoom waaw. yow yokk paas bu baax baax moom paas moom dañ koy yokk rawatina oto yi nan lay yenn saa yi mën laa jëmale foo xam ne si jëmoo fa sax ngir xaalis bi rek ngir xaalis bi rek. léegi ñu mom li ma leen mëna wax moy comme ça ñu toralé rek ba borom dëkk bi ta xamné manam lepp moma mooma bu doon mom fi ñu mom danaka duñ jënd dara ci réew mi ñu toralé ko bu baax baax. merci beaucoup content na. sëñ bi noo def. ñi ngi sant yalla bu baax baax. maa ngi si jàmm bu baax. ñu ngi si baax baax baax baax man Cheikh la tuddu waaw. Cheikh ñu gis la nga nekk fi ci garage bi euh mën nga ñu wax tuuti rek ci garage bi par rapport ak magal Touba bi ñuy jëm. waaw comme sama mbokki taalibe rek euh walum garage bi mo gis nga lu ko ne xamna na euh sëñ Bamba woote ñi wajal 18 safar ni ñun ñi ay taalibe deug deug taalibe nek ci dekkam bi ni lepp luñ muy santane lu nek ñun mouride ñang ci lepp lo xamante ne mooy fu mouride rek ñi ngi ci ñun borom seret ak ñepp ñun ko andal muy suñuy chef ak ñi nga xamante samay moromi saretee la ñi dawal ak ñëpp kenn ku ci nek lala war yaa ngi ci waaw. Euh, euh, ñu ñu gis euh, ñoo ngi nii di préparer màggal gi clients yi ñu ngi ñëw ndànk-ndànk ci wàccaay gi mbaa doo leen faral di am ay problème ak clients yi ak yoon bi dal non loo gis lu nekk liggéey boo gis bu nekk du ñàkk ay gàllankoor quoi parce que ñi nga xamante ni ay gan lañ te xam nga ne dëkk bi nii nekkul dëkk bu ndaw buñ ne màggal Touba Sëñ Bamba woote ku ne ñëw kenn ku nekk ak jukkaam ñun ñëpp dañoo organiser wu mobiliser wu ki nga xamante ni mooy suñu njiit di njaga lépp loo xamante ne mooy wareef ci nit ki nga xamante ni moo jiite ma nga cay dox suba ba ngoon bépp jafe-jafem nit ak lépp loo xamante ne mooy problème ma nga cay taxaw avant magal di ñëw nii ñun ñëpp dañoo woo wax ñi li nga xamante ni moo warloo ab murit warloo ki nga xamante ni dañ lay fekk si nit njëkk ga ki lay gane si jukko ju nekk lay indi waaye yow mi nga xamante ni yaa koy dalal yaa war a xam kii li ko tax a jóg ak yow li nga xamanteni mo la war sa digg ak mom ndax nit ku nek ku ne ngay gis ku nek jukkoom mais yow mi nga xamanteni yow lañ fekk ci du ñak ne da nga daj ak ñoo xamante da ngay safaan ak ñom mais yow yaay xam li nga xamanteni mo la war sa digg ak gan ñu rafetal yaatal def lepp lo xamanteni niko borom dekk bi wootee la ndax lepp yërmande la doon da dana ñew leen ngeen sante lema sama borom jaamu yalla bernde kon xam nga ne kooku déjà soñu nañu euh, te bëgg nañu dimbalé te képp ko xamante ni nekk nga doomu aadama nekk murit yaay wuy ca woote boobu nga xamante ni moom la woote di ca dox sa kemtulaay kàttan ndax borom dëkk bii nii lépp doo ko fàggul boppam kon nag xam nga ne kon am na yoo xamante ni yow mi nga xamante ni yaa bëgg a jariñu yaay jëf lay tax sa njariñ feeñ képp koo xamante ni ñëw na muy gan indi lépp loo xamante ni lamboowut ak dëkk bi yow mi nga xamante ni yaa ko dalal sañ ngaa toog wax ak moom dalal ko euh, may ko yitte euh, te xam ne ya ma xam euh, ki nga xamante mo moo woote am gan gu nekk yow mi nga xamante ni yaa recevoir nak yaay xam la la war sa digg ak ñoom yaatal leen dalal leen fexal leen ba lepp jafé jafé du am ñu defe ko ni nga xamante ni moom la borom magal gi wote sen digënté ak ñi nga xamante ni ñooy takk der yi yor sécurité nit ñi nek ci biir Touba ndax do leen faral di am ay jaxaso wala di réeroo sax ci yoon yi ngeen di faral di jaar. waaw lool mom du ñak ndax mbolo fu ndajalo du ñak ño xamanteni duñ def la nga xamanteni mo lambok moo santane ndax fo gis ku am deg deg gis nga fo ko xamanteni ku du deg lañ koy digal la lolo waral jumo di am ndax nit ki du caagi kiñ fi tek ngir door nit mo tax mu ñew waye ngir defar la ki nga xamanteni mo deugar bop ba gis lo xamanteni moy mooy ba ya ko tek sa bop waye ñun ñi nga xamanteni ño nek ci garage bi mobilisé wu and ak njagam yi mu ñi digal kep ko xamanteni ni fi daw waref wala war bo ci do kenn du ñàkk nag moom ndax liggéey boo gis am na safaan koo xam te ni mi nga jaar ca lañ wax di jaar ca lañ digle waaye du ñàkk ñoo xamante ni tamit kasaalika dañuy jàddu yoon waaye ku jàddu yoon yaa koy gis waaw waaw. Euh, paas nag fan la toll. waaw booy yi moom yaa ma gën a xam suñ bàmbaa woote ku ne ñëw du ñàkk ñuy gis seen bopp commerçant bi ci biir marché bi sax mi ngi gis boppam ci nga xam te ne xéewul suñ la. mais yéen dañ naan bu màggal gi jug see da ngeen yéegal paas yi de. ah loolu du ci dara. ki nga xamanteni la la wax ni mi ngi ñew sëñ Bamba fagul nako lepp ba daram du jafé ki nga xamanteni mi ngi ñew day koy werné famuy jëm daray jafé jafé dako fa fekk ndax ñam fay fekk dañ koy tatagal dalal ko paas mom du ñak mu ñëw ndaxte doomu adamay lo xamanteni ay doomi adamay yi centaine de doomu aadama ñoo ñëw ci dëkk bi ñëpp ñoo and di transporter ci saret yi te du ñak ñu yoko paas même auto yi dañuy yok commerçant bi day yok ki nga xamanteni sax ouvrier la di liggéey yok na la nga xamanteni moy am xeyam ak lamuy liggéey loolu mom ay yok yok boobu nak du won yon ndax ah, magal gi lañ wote dañu waron wacce lepp ngir kep ku ñew mun ci gis bopam ba fi ba ba muy ñib du am ben jafe-jafe. mën ta ñak parce que ki nga xam tane mo jënd marchandise am sax wut na intérêt bam ci tek mën ta ñak mën ta ñak intérêt dal bo leen ci tek dal non du cadre intérêt sax mais nit ki limi liggé lu nek xam nga yon be xat. yoon bi sétiré na tey jii ni si tey boo yeboon war a am 30 minutes di nga dem ba am ay 2 de temps si yoon parce que dañ lay teggiloo di jaarloo foo xam te leer na fii nii normalul looloo waral loolu mais xam nga ne ku ñëw ci sëñ Bamba lépp yi la war a àndal lépp yi xéewal lépp yi yomb lépp loo xam te ni day jafe sax waru fee am yokkuñu nag moom man sama classe gi nii moom yaa ma gën a xam yokkuñu merci beaucoup lan ngay wax ne nii ñooy sa mbokk dawalkat yi ak ñii di ñëw pour màggal ah ñu def liñ santaane comme war may dëkk bi rek lim lambol li borom dëkk bi wote tamit ñu lambok mom jëm ko defee nam ko bëggé dem caa def suñu kemtu lay katan ta baña def lenn safan ñu def magal gu mucc ayib comme niñ ko daan defee yeneen yi bu ñëw rek gatchal ba jall ci doole Cheikh ibrahim wa magal gi yalla ñu ci ex ci jàmm salam te gan ñi ñëw ci jàmm salam te yàlla muccal ci yoon yu xat asdaaye tolofa tolofa yi ndax magal gi seigne Touba moko yoral bopam waaw nee na déglul ma wax la la waral màggal ga nga xam ne Seex Bamba réel demam ga taarix ba xam si si mooy at ma moo di lal ba sëriñ Basiiru mbég ma booba la yàlla faratal tabaski ak tam xarit may na ko gaa yi mbàkke yi bi xidmatil xaddiimi mi wax doo bi tarax ilaa jihaadi la maam yi laay bëgg a wax nga xam ne Bamba di na si waaw kon nag màggal gi yàlla nañ ci egg si jàmm ak salaam wees si jàmm ak salaam te safoor yi def ndànk dawalkati yi def ndànk yàlla yokk xewal géeg wér musal ñu si lépp luy loré té lepp lu ci ñaan yalla ñaan rek lepp lu ci waaye ñaan rek yalla na nangu ci barke sëñ Touba mi nga xamanteni moy borom màggal yéne fam yalla na yalla yokk xewal ge wér geeg mani te yokk garaat yi merci waa kay jërëjëf sëñ bi no tudd man bolé la tudd bolé fal ci lan ngay yëngu man ko affaire lay def mën nga ñu mëna wax instant bi ci sa liggéey ak période magal gi ñu né waaw sant yalla rek waaw sant yalla bu baax affaire mom ñi ngi sant yalla mi ngi ñëw ndang ndànk mais euh, xamna dal daal na mais instant bi daal li ñu gisagoon moom ñu ngi sant yàlla baax a baax a baax comme fekk nañ ko rek. Euh, yéen yow da nga bokk ci ñii di yokk prix màggal wala yow màggal ak ñaaka màggal yëpp li nga prix bi nga doon fayee ko moom ngay fay. non non ñun duñ yokk ñun duñ yokk parce que ñun ay taalib lañ ci dëkk bi lañ dëkk mais am na ñoo xam nag dañ leen dañ gaan ñoom bu ñu watoo dinañ yokk ci seen prix li ñu fay ndax xam nañ ne affaire doxul mais ñun moom duñ mës a yokk moom comme niñ daan defee rek lañ na duñ changé. d'accord yéen ñaata ngeen euh, fayee ko son bi pour wat san dépend rek am ñuy fay 1000 francs am na ñuy fay 800 am na ñuy fay ba 1500 sax waaw ga client yi nak mbaa ñi ñew bu baaxa a baax. waaw client ñi ñew mo nang dang rek ñi ñew dang dang mais dund yaakaar yaap nañ ne dana gëna normal. lan nga mëna wax ci magal gi yoon dawal kat yek yooyu. wa sant yalla rek magal gi mom nañ ko def nañ ko daan magal rek te dajje te ngeerum señ bi ànd ak yar ak teggin ak ne ko señ bi war may dekk bi sam war may dekk bi goor ak jigen mag ak ndaw ndax señ bi suñu jàmm rek bëggal lu baax rek lépp lu muy defal suñu yéene boobu ñoo tax mu koy def daal dañ si ànd ak yar ànd ak teggin te ñëpp ñëw si jàmm ñibbiwaat si jàmm kenn bañ am benn jafe-jafe te ñëpp dajee ngërëmul sëñ bi te ku nekk boo ñëwee nga def li sëñ bi bëgg yar ak teggin akub taalibe ndax loolu la sëñ Tuubaa woote waaw kay. merci beaucoup. waaw soxna si jërëjëf ba beneen yoon kon bon màggal mbokk téléspectateurs yi te li lañ leen indiloon ci seen ay reportage dugg nañ ci marché bi dem nañ ci garage yi waxtaan nañ ak ñi nga xamante ne nii ñooy dawalkatu charrette yi mais également waxtaan nañ ak euh, clients yi ñi nga xamante ne nii euh, ñoom ñooy ñëw euh, di déplacé wu waxtaan nañ ak ñoom ci yoon bi mais également wax nañ ci li nga xamante ne nii moo di prix yi donc chers téléspectateurs te li leen leen indiloon ci seen ay reportage li leen wax restez connectés ici à Galaxy TV Sénégal c'est ici que ça se